بسم الإله الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngeen di nuyu ngir jëm yàlla subhanahu wa taala ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam guddik fàttaliku gane jamono muhammad alayhi salaatu wassalaam gane lañ doon wax ne nekkul ne gane jamonok benn nit ci nit ñi rekk ko feeñ mu jeex yaa ñug Muhammad alayhi salaatu wassalaam man nga nga ne bis ba mu ganee àdduna keroog la insaaniya juddu keroog la humanité juddu lu jiitu Muhammad alayhi salaatu wassalaam nit ku yëg ne li nit aajo woo mu soxla ko da ko war a partager ak moroomi nitam yi nekk ci kaw suuf dafa mel ne lu ñu doon gént wala lu ñu doon imaginer loolu moo waral suñ borom rëdd ci xolu way gëm yi te am dégg gu xóot ci diine ji bis bi mu ganee àdduna bu agsee ñu jàppee ko comme feet di ci feeñal ay mbégte ci waxtaane ay jaar-jaaram ci waxtaane melokaanu diine ci sarsewaat seen xol ak ngëm kon jëfi gàmmu lu mu doon mooy daje gu nit ñi di daje ni ngeen ko waxee di jàng alxuraan di nettali ay xabaar yu rot ci dunduk jëmm ju ñàkk naw la jooju feeñoon ci guddik tey di waxtaane la ca xewoon ci ay kiimaan di togg ay ndabi ñam di ko séddale ay bindéef nga xam ne buñ fa dee jóge leneen du dolliku ca loola ñu wax loolu buñ ko seetee ñaari wax la boroom xam-xam yi wax ñu dañ ne biddaa la biddaa bu rafet ñenn ñu ne déedéet loolu du biddaa de waaye ci ijtihaad ngeen koy dugal ñu wax ne biddaa la biddaa bu rafet dañ ne biddaa mën naa war mën naa doon lu ñu sopp mën naa doon lu dagan mën naa doon lu xaraam bidaa mooy jëpp-jëf joo xam ne yàlla yónni woon ci ñun alayhi salaatu wasalaam dund na ba xëy génn jamono te defu ko moom ci jëmmi boppam naa ah, kon nag dañuy seet yi nga xam ne salaale alayhi wa sallam defu ko woon dañ tàmbali koo def ginnaawam ñi nga xam ne nag ñoom la kenn dul mën a déggool mooy ñi nga xam ne kullu bidaatin dalaala dañ koo maasale rek ñu ne leen yéen même alquran mi nga xam ne mooy ndeyu bi gi buñ ci demee du ngeen am sukkandikukaay ndax kullu yi ci alquran yëpp buñ ko seetee ñu nee na ñaari kull moo ci matale ñu ne ñetti kull ñoo ci moo ci matale amul beneen kull bu alxuraan wax boo xam ne matale na mu ngeen ne kull bidaatin dalaala rek dal di jël ñooñu ñëpp ramassé leen jëme leen fu ñu tànnul fa ñàkk dégg xoot xooti diine mi ngi ci biir ba ci salaatu taraawix weeru koor bu jotee ñun li ñuy tuddee naafila saxal ko dañuy jàngul sax jàpp ne sallallahu alayhi da ko daan def muy julli nduytu ñuy def ci weeru koor mu ne ndax sallallahu alayhi wa sallam ko def ginnaawam lañ ko tàmbali <coughs> te julli di bu ñu masaana ñëw ci biir jàkka ji kenn ku nekk da ngay déglu kën ku gën a neex baatub alxuraan nga dem ca ginnaawam di déglu dégg keneen ku nekk gën a neex baatub alxuraan nga dem ca ginnaawam Seydina Umar ibnul Xattaab moo ne leen lii na fi dañ da ngeen di tànn léegi kenn koo xam ne kii mooy jiite mbooloo mi bi nga xamee ni bii settantal nañ loolu gis dëppoo gi ci julli yi dëppoo ak ngëneel li ci tàbbi mu ne ni'matil bid'atu hazihi ndaw bid'a bu rafet bid'a bu baax kon nag ñi nga xam ne ñoo ne gàmmu dafa tàbbi ci biir bidaa xasana ñooñu teg nañ seen tànk fu dëggu ñoom <laughs> waaye ñi nga xam ne ñoo ne leen déedéet gàmmu du bidaa waaye ijtihaad la ndax kat ijtihaad lu mu doon al mujtahidu in asaaba fa loo ajraani wa in axtaa fa loo ajrun waaxidun mujtahid su dalee ci njub ma am na ñaari tuyaaba su moyee njub ma am na benn tuyaaba lan mooy ijtihaad dangay jékki-jékki toog yëg na sa bakkan daal ni nga ko war a yare daal des na ma ne ah fan yi daal dinaa yar sama bakkan daal di tànn lu mat une walla ñetti fan yaa xam di ko woor ku nekk xam na ne koor yëfi lislaam la waaye fan yooyu nga tànnal sa bopp ngir di ci woor ngir yar sa bakkan xam nga ne kenn santu la ko loolu mooy ijtihaad nga toog ba yàgg yëg na sa xol dafa xaw a wow nga ne daal ñaari fan yii walla vingt-quatre heures yi daal danaa ci wàccee kaamilu alxuraan tàggoog nit ñi ba jàngu kaamil ba mu àgg jëmmi jàng nga jàng alxuraan jëfi lislaam la waaye forcé gi nga forcé sa bopp ba bu kaamil loolu ijtihaad la kon ñaari déggin yooyu moo ci am kon niñ ko waxee léegi nit ñi di daje jàng alxuraan net li axbaar yi rot ci dundug Muhammad alayhi salaatu ak na mu ganee àdduna ak kimtaan ya ca xew togg ay njam ndami ñam di ko séddale bu ca leneen dollikuwul la benn kuréel boobu nekkoon jëf la joo xam ne dañ koo sos waaye lu rafet la ku ko def danga ci am tuyaaba ju màgg ngir la ca nekk ci màggal darajay yonent bi alayhi ak feeñal mbégte ak bég ci ak gane àddunaam ki njëkk jëf loolu ci kaw suuf ma nga nekkoon buur bu ñuy wax Abu Saïd lañ ko daan dàkkental mu tudd al Muzaffar al Kawkabari ibnu Zeyniddin dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Irbil ci réewum Irak daf ko daan waajal di ci def alal judul jeex mu doonoon buur boo xam ne ku am njàmbaar la ku am xel nekkoon di boroom xam-xam nekk di nit ku màndu mu ko tàmbalee ab diir la benn boroom xam-xam bu jóge Maroc suñu boroom wommat ko ba mu ñëw Irak ku ñu wax ibnu dixyata daal ko cey taalifal benn téere bu tudd at tanwiir fi mawlidil bashiri nazir mu daal di ko cey neexal junniy dinaar junniy diinaar neexal na ko ci ko ci ki ñuy wax sibt ibnul jawzi wax na ci téere bu mu tudde miraatu zamaan nee na lenn ci jëmm yi nga xam ne daan nañ fekke gàmm googu almalikul muzaffar daan taxawal ca Irak nee na gàmm fàttali ko na ci gàmm goo xam ne juróomi junni boppi xar juróomi junni boppi xar moo ko wëññil boppam fukki junni tëngi ginaar ak téeméeri fas waaye yow mi nga xam ne sa xam soriwul nag ci ngirum Malick rek nga boo déggee téeméeri fas yi bu mu la jaaxal sam ngir moo xaraama lekk fas ay ngirum imaamu Shaafi daganal la lekk fas ak téeméeri junni paqueti fromage ak fanweeri junni paqueti tàngal walla nga ne nakk walla nga ne beñe <clears throat> gàmmoom googu ay boroom xam-xam daan nañ ca teew ak ay sufyanke bu ñëwee da leen di wadd ay yére di leen defal ay takkaay di leen déglu kenn ku nekk li nga xam muy lu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga wax ko mu di la déglu <clears throat> at mu jot noonu la daan def léeg-léeg ñetti téeméeri junniy diinaar dana ko fere ci gàmm boo ko doon seetlu loolu ay millions yi millions lay doon nga xam ne tabaxoon na kër gu ñuy wax daaru diyaafa lil waa fi diina mujj na tabax kër guy yéeme goo xam ne gan yi ñëw di gàmmu si rek ñoom la waajaloon kër googu jamono yi xam ngeen ni jullit yi ak tubaab yi ñu ngi ci guerre bis boobu su jotee bu ñëwee walla bis boobu su jotee dana génnee alal ju dul jeex jullit yi tubaab yi jàpp ay jaam mu fay leen ay junni junni ngir libérer jullit yooyu nga xam ne ñu ngi ci loxo yi ñooñu nga xam ne ñooy tubaab yi jullit daan xeexal jamono yooyu mbokk yi loolu sax na di wéy di daw diir bu yàgg ba jëmm ju ñuy wax taaju diin Omar ibnu Ali al-Laxami as-Sikandari ñu gën koo xam ci faakihaan yi fitna ji ngeen dégg fan yi yenn ti gaa yi nekk ci rajo yi ci réew mi ak i télé naan gàmm gàmmu nangam nangam gàmmu bidaa la nangam nangam ki nga xam ne mooy seen sëriñ ci loolu mooy jëmm jooju wax faakihaan yi moo daldi di taalif benn téere tudde ko al fil kalaam ala amalil mawlid wax ca lu ko neex waaye boo demee ci téere Abdurahmaan Suyuuti fataawaam boobu mu tudde alxaawi da gis téeréem ba baat par baat texte par texte ak di ko jël di ko dagg te di sànni di dajj ay layam ba na ba jeexe da nga wut téere boobu alxaawi bu Abdurahmaan yi Suyuti Suyuti mooy jëmm ji nga xam ne fan fànn goo dem ci lislaam rek na nga fekk mu taalif ci lu doy sëkk sëkk mbokk yi ci atum 1354 ci réewum Syrie nii ngeen def rek jullit yi ci àdduna bépp ñu ngi koy def xam nga sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon laa tajtami ummati ala dalala sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet bi du daje ci réer te gàmm day fi ñu toll nii àdduna bépp ca penku ba ci sowu jullit yëpp koy defandoo ba ci Arabie Saoudite famille royale ba xanaa. bu amee ñu dul gàmm ñu dul gàmm waaye boo demee ci réew ma ruq boo dem ci réew ma dëkk booba dem ci réew ma fi ñu toll nit ñaa ngi fay gàmm te sallallahu alayhi wasallam moo ne woon sama xeetu duñ daje ci réer laa taj tamit ummati ala dalaala nga xam ne saxiixay ni buxaari yu ak muslim dëppoon nañ ci hadis boobu jëm jooj ñuy wax Faris bag alxuuri nekkoon ministre ci réewum siri atum 1354 ci Damas mooy capitalu Syrie bi ñu defee podium bi invité ko te moom catholique la de du jullit waaye bi ñu ko joxee kàddu déglul li mu wax keroog nee na Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy gën jaa màgg képp ku màgg ci kaw suuf kuy màgg rek Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo la gën a màgg ci jëfe ma sa jaar ci kaw suuf mu ne àdduna musta am ku mel ne Muhammad salaatu wasalaam mu ne Muhammad sallallahu li mu indi mooy gën jaa mati diine mooy gën jaa dajale ci diine yi loo xam ne jënn diine dajale woo ko mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa dénk na sharia bu laab bi ñeenti junniy masala masala yu scientifique ak yu social ak yu yàlla mu ne ñi nga xam ne ñoo spécialiste ci xam-xamu loi yi nit ñi war a tënku ngir jàmm am mu ne ñi nga xam ne ñooy ñu maandu kenn mënu cee critiquer benn ci ñeenti junniy masala yi nga xam ne moom vérifié na ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam indi ko yii dafa dëppoog science yii dëppoog science sociale yii ñi nga xam ne ñooy tëral wàllu loi ñoom it yàlla def na leen ñu xam ca xam-xam bu géeju mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa mi ngeen di feetul tey ak di ko teral ak di ko fàttaliku mboolem kuy dund ci kaw suuf moo la gën a màgg ci ñi njëkk ak ñi mujj lu waral loolu nee na Muhammad sallallahu alayhi wa diir bu gàtt mu mën a boole mboolem araab yi boole seen kàddu kaaba gi dong bi muy ñëw ñetti téeméeri xërëm ak fukk ak ñett ñu def leen ñu def ko ay yàlla dëkk bu nekk kër gu nekk di jaamu benn yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daj yëpp yóbbu leen ci tawxiid ñoom ñëpp ñuy wéetal maalikul mulooki rabbul arbaabi diir bu gàtt ñaari royaume yi fi ëppoon doole ci kaw suuf muy perse yi ak romain yi lislaam daaneel leen fu ñu amoon ab pale nodd di fa jib allahu akbar di fa jib mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa kon <clears throat> moo indi <clears throat> constitution bi nga xam ne bu ci àdduna bépp tënku woon ñëpp ay am jàmm te ki wax lii nee naa la du jullit Faris Bak alxuur yi ab chrétien la de <clears throat> mbokk yi xam ngeen ne màggaayu jëmm ji nga xam ne moo tax ñëpp wacc seeni nelaw tey ñëw di ko fàttaliku <clears throat> fi ñëwee ba jóge fi turu Muhammad yi bari na de waaye jëmm ju am yu turandoo te ganeegul àdduna ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko mës a gisee lu waral loolu ahlul kitaab muy juif yi ak chrétiens yi xamoon nañ ne yonent bi ñëw mujj jamono Muhammad lay tudd ñëpp xam ko di ko xaar ñu bare bari bu seen soxna nekkee jigéen wérul ñu sàkku ci seen boroom yow yàlla doom jii di ñëw yow yàlla yaa ngi ko yàlla na nga ko def muy yonent bi ñëw mujj jamono gis nga Muhammad ibnul Xusaa'i ibnu Xisaaba muhammad ibnul xusaayi ibnul xisaaba xusaayi moomu tudde na turam doomam muhammad alayhi salaatu wasalaam te yonent bi sallallahu alayhi ganeegul àdduna ci bannoo tamim ku ñu wax sufyaan tudde na doomam muhammad alayhi salaatu wasalaam te muhammad ganeegul àdduna ngir mébét doomam jooju nekk yonent bi yàlla di yónni ci bannoo sawaa tudde woon nañ seen doom ku tudd Muhammad al-Jazaï Muhammadul Usaydi Muhammadul Fuqaymi loolu lépp kat xanaa kon di leeral ne am na yonent bi waaj feeñ ci jamono yi nga xam ne moo nekk ci seen kanam xam ngeen ne li ñuy tuddee prophétie ak prophète muy ab yonent ak yonent dafa nekk di lu munta ñàkk ngir bindee fi ci kaw suuf texe ngir lan nit ak jinne mën a àgg ca dayoo bëggan ci ñoom waral mën a la jinne nit ñi ci risaale bi lañ bokk waaye jinne yi tamit ci risaale bi lañu bokk <clears throat> xanaa gis ngeen qul uuhiya ilayya annoo istama'a nafarun minal jinni wa qaalu inna samina quraanan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi li waral saar woowu wàcc sallallahu alayhi wa bi ko yàlla yónnee bañ teg ci lu tolloog ñaar fukki fan dafa nekk ci barab bu ñuy wax nax la jëm si biir màkk ci marché ba ñuy wax Ocass jamono Màkka am na ñaari marché yu mag bii ñu koy wax Ocass bi ñu koy wax Zul na seytaane yi jóg nañ naaw bëgg a déglu xabaari asamaan waaye fu ñu jëm rek ñu gis ay jumi safara di jóge ci kaw asamaan si di leen dàkku di leen lakk ñuy daw nga xam ne dem nañ wax ko ibliis anatullahi alayhi ñu ko ko xabaaree mu ne leen dem leen wëral ma pàkki suuf yi suuf su nekk na ngeen ci tibb indil ma nga amee ne ki ko tibbal suufas tihaama iblis jël suuf yi di fóon di fóon bi fóonee suuf soosu la ko ne ah yow day yaa indi suuf si nga am ne fa la xew-xew ba xewe daa am yonantu bees bu ñu yebal de alxuraan jamay jàng moo baari seen diggante xabaari asamaan ak lam ca teg nu ko téere taarixee waxe wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabuduuni suñ borom ne bindul nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ko ci suratu zaariyaat kon nit ak jinne ngir ñu jàmm ko rek moo tax yàlla sàkk leen waaye bu ñu ko dee jàmm ci nan lañ koy jàmmoo faaw day am jëmm juy wax ne nii ngeen koy jaamoo làq ngërëmam bu ngeen ko mooyee làq am meram muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñëw ngir won nit ak jinne nu ñu war a jaamoo kooku nga xam ne ñu jaamu ko dong moo tax mu sàkk nu suñ borom sàkk na nit ci fitra lan mooy fitra doomu aadama kat la maaw yi nee nañ bu juddu woon tey nga jël ko sànni ko ci àll gisul kenn ku mu waxal daf muy fortaatu di lekk ka naan ba màgg boo ko laajee da nga fekk mu xam yàlla danga nga fekk ci moom taw tawxiid lu ko waral nit suñ borom da koo sàkk ci fitra sallallahu alayhi wa sallam daf ne kullu mawludin yuuludu alal fitra fa waaw abawaahu yuhawwidaanihi aw yu yumajjisaanihi aw yunassiraanihi képp ku suñ borom sàkk yàlla sàkk na la ci xam yàlla juif bi daa fekk ndeyam ak baayam nekk juif moo ko tax a nekk juif chrétien bi dafa fekk ndeyam ak baayam nekk chrétien moo ko tax a nekk chrétien <coughs> foofu sax dañuy bañ a dagg yoon bi waaye xam nga ne imaamul Ghazali foofu la amee woon problème soo jàngee téeréem ba muy nettali fi mu jaar loolu mooy crise bi wàccoon ci xolam mu ne mbaatu yëhóot bi fekk ndeyam ak baayam nekk yëhóot mu nekk yëhóot chrétien bi it fekk ndeyam ak baayam nekk chrétien mu nekk chrétien mbaadu man tamit dama fekk sama ndey sama baay nekk jullit rek moo ma taxe nekk jullit ana dëgg gi ba gis ngeen li wàccoon ci xolom te lëjul ko witt ba mujj feebar ko manam gàddaaye ñëw saam nam saxe ab diir dal di jàll Quds ñu fa jógee dem aji màkk dellusiwaat ñëw foofu ci saxratu yàquba def fa juróom-ñeenti at ñu ne ñetti at ñu ne ñeent waaye juróom-ñeenti at lu lëng la ba suñ borom wan ko fa sekk rek diine lislaam dëgg-dëgg moo tax bi ñu ko laajee noo xamee yàlla xasaali def na bi nuurin xasafahu laa fi bi ci leer gu yàlla sànn ci sama xol kon nag suñ borom sàkk na doomu adama ci fitra nit sax ci méthode bu wéetal yàlla junni at mën na fukki siècle ba xëccoo tàbbi ci seen biir suñ borom tàmbalee yebal ay yonant ci ñoom yonant yi bu ñu ñëwee dañuy bégal ñu nangoo topp njàng li mu jóge asamaan di xupp ñi nga xam ne ñoo nangu wat a topp njàngale moom noonu la ko abdullah ibnu abbas indee ak déggam moom ci sekkareb aaya jooju kaana naasu ummatan waahida détail yooyu yëpp ibnu abbas <clears throat> moo ko leeral wax ko ci déggam ci aaya jooju <clears throat> kaana naasu ummatan waahida mooy lan ci njaal bennu bind dañ leen bind ci tawxiid wéetal yàlla bu sell wuute daldi di ci biir nit ñi ngir yàggu jamono wa baasa laahu nabiyina mubashirina wa munzirina wa ansala maahum alkitaaba bilxaq li yàquma bayna annaasi fi ma axtalafoo fiihi kon yonant laa wax ne munta ñàkk ngir nit mën a jub jaamu ki ko sàkkoon <clears throat> loolu moo war a sax ci histoire xam ngeen ay jëmm ñu daan tudde al ahnaaf wala ñu daan tudde al xam nga ne ko deme ne waraxatum nu nawfal nga xam ne mbokk la ci soxna Xadija sallallahu alayhi wa sallam a jógee xaaru xiraa in ñu ko jibril dikkale tiital ko lool yóbbu aw fitam yóbbu xelam soxna Xadija dafa ànd ak moom ba ca waraxatum nu nawfal ba mu ko laajee li ko dikkal nu mu mel bi mu ko xabaaree ba noppi mu ne ko yow day an ak akbar bi daan dikkal yont yàlla Muusa moo la dikkal ne ko ah aka neexoon ma fekke bis bala waa Màkka di génnee su boobaa danaa ànd ak yow génn lu jara def su boobaa danaa ko def sallallahu alayhi wa mu ne ko awa muxrijiyahum mu man ndax dañ maa nar a génnee mu ne ko ah danañ la génnee de li waaje indi indi nit ñi lu leen dépassé mënuñu ko lijjanti ba xam ko nar a wuuteeg li fi nekk lépp danañ la xeex danañ la lor danañ la génnee ak a neexoon ma fekke ko Waraxatu ibn Nawfal moomu bokk na ci ñi nga xam ne xool nañ ba xam ne waa màkk ci ay caaxaan lañ nekk yett ay bant samp ko ci kaaba gi di rendi ay gëléem ak ay xar di ko tuur foofa <clears throat> ah lii ay caaxaan la rek ana diine Ibrahima waaye mënuñoo fexe ba xam lan mooy diine ju sell ji ndax yonent bi ko war a indi ñëwagul gis nga <coughs> ki nga xam ne mooy Zayd ibn Amr ibn Nufayl <coughs> Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom àgg na ci wër génn Màkka dem ba Saam wër ci yahood yi laaj <coughs> waaye église bu mu dem bu laajee borom xam-xam ba fa nekk rek daf ko naan yow kat diine ji ngay wër ma nga nar a feeñe ca réew moom mee nga jóge ci arab ya la war a feeñe soo yóbboo nga dem xaar ko foofu Zayd ibn Amr ibn Nufayl suñ borom dogalee mu yëg ne léegi mu faatu dafa wax jëmm ji ñuy wax Amir ibnu Rabia ne ko man xaar naa ba tey yonent bi waaj feeñ ci doomi Ismaayil lay bokk ci bannu Abdul Muttalib lay bokk te jàpp naa ne bu dee feeñ du fekk muy dund maa ngi lay xamal ne gëm naa ko dëggal naa ko maa ngi seere ne ab yonant la yow nag bu la fi yàlla bàyyee ba yonant boobu feeñ nag ma ko nuyul xamal ko ne gëm naa diineem donte maa faatu naa jiitu naa ko ci sama borom gëm naa diineem na ma seere ëllëg ci kanamu yàlla sallallahu alayhi ne ko ngir ma xamal la yonant bii di waaj a ñëw danaa la won aw melokaanam bu ñëwee du gàtt lool waaye du njoole lool du bari kawar lool waaye du néew kawar lool ñaari ñaari bëtam ya ay xonq-xonq du tàqalikook liy weex ci bëtub doomu aadama fu mu toll ay tupp-tupp yu xonq ma nga ca loolu mooy bayaaduhu musharrabu jooju Cheikh Amadou Ba mu wax ci juzbul qulub ila alamul xuyubi ni ko diggante ñaari mbaggam ya it tàmp profisi baa nga fa dafa dafa def lu mel ne nen nekk ca diggante ci diggante ñaari mbaggee ca ndodd ma bis bu yàlla dogalee nga xool mën a gis ca diggante ba da gis xaatu mu ndubu ba ne ko bu jëwe yit ahmad lay tudd màkka gii lay gane jamono ne ko yasriba yasriba boo madinatu mun na war a tuddagul madina yasriba lañ ko daan wax mu ne ko yasriba la nar a gàddaaya suñ borom dana feeñal mbiram nanga moytukat nga waru ci mbiram màndarga yi ma la wax boo ko bàyyee xel bu feeñee danga nga ko xam ne ko wër naa réew yi fu nekk dem naa fa di sàkku diine Ibrahima waaye fu ma dem ñu ne ma fa nga jóge la yonent boobu nar kaw suuf yàlla dootul yabalati yabalati benn yonent bu dul yonent boobu yi moo tax sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee waa jooju gis ko xam ne yonent la bi mu ko xabaaree waxi Sayd ibn Amr nu Nufayl bii sallallahu alayhi wasallam def ko ne xad raaytoo fil janna yashabu zuyulan ne ko Seydou nu am di ndey gis naa ko ca àjjana muy diri yére àjjanam ya di mbicc mbalaanam mbalaanam yi mu ngi koy diri ci biir àjjana kon nag muy yonant boo xam ne bu agsee li ko nar a topp ciw nit moo ëpp téeméeri junni yoon yonant bu fi mës jaar lalay topp ci aw nit ndax sallallahu alayhi wa sallam benn bis hadis boo xam ne Saïd ibnu Jubayr moo ko solo mu ne ibnu Abbas moo leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa def ne leen damaa toog ñu di ma gaaral xeet yi benn yonant léeg-léeg romb sama kanam léeg-léeg ñaari yonant waaye ma gis léeg-léeg ab yonent dana romb mbooloo mu tuuti mooy ànd ak moom am na yonent yoo xam ne ñetti nit. ñeenti nit ak yonent yoo xam ne juróomi nit juróom ak yonent yoo xam ne juróom ñeenti nit ñoo leen di topp léeg-léeg ab yonent romb ma sax kenn du ko gëm kenn du ko topp nee na ma jekki-jekki gis mbooloo mu bare bare bare topp benn yonent ma ne xanaa ñii ñooy sama waa kër ñu ne ma déedéet kooku muusaa la waaye bi Moussa jàllee nee ma gis horizon yi fees dell ndeyjoor ak càmmooy kanam ak ginnaaw ñu ne ma xoolal xoolal nee na ma xool sama bët di bëgg laal asamaan ñu ne ma lii mooy sa mbooloo ñii mooy sa saw xeet ñi nga nar a tàbb nga àndal nar a àndal tàbbi àjjana daal ne ko am na ci ñoom ñoo xam ne juróom-ñaar fukki junni danañ dugg àjjana te kenn du leen réglé kenn du leen xisaab juróom-ñaar fukki junni ci jullit yi danañ dugg àjjana te duñ jaar bi sëñ te duñ jaay jaar layoo kenn du leen xisaab sallallahu alayhi moo ko wax de sallallahu alayhi waxee loolu daal di dugg nag ah jullit yi tàmbalee werante ci jataay bi ñu waaw ñooñu ñan lañ juróom-ñaar fukki junni yi ñu daal di ñun ñii la ñun ñi daje yonent bi sallallahu alayhi di dundandoog moom gëm yàlla topp sunna su Muhammad sallallahu alayhi sallam ak sunuy doom yi nga xam ne jur nañ leen ci lislaam ñenn ñi ne déedéet du ñun ñi waaye suñuy doom lañuy doon ndax ñun ci jaahiliya lañ ñu jur am na luñ jëf bi lislaam daataan ñëw salaale alayhi wasallam bi ñu laaj ko mu ne humul lazina laa yastariquuna wala yatatayaruuna wala yaktawuuna wala rabbihim yatawakkaluuna kon xanaa identifié na leen ñiy dugg àjjana juróom-ñaar fukki junni yooyu te kenn du leen xisaab sallallahu alayhi ne benn seeni màndarga daawuñu mocc tudd na ñett de kon nag ko yóbbu nag ci natt sa bopp seet sa bopp daawuñu mocc lu leen yàlla teg rek ñu bàyyeek yàlla walla yetta tayaroona daawuñu gaafu gaafu moom lu olof mën a ngi noonu olof yàlla du def dara lu ko dal rek wut na ku ko def am na ci sax ñoo xam ne bu ñu xëyee suba di waaj génn dañuy tànn góor laay dajal wala jigéen laay dajal am na ci ñoo xam ne bu ñu nee tëll seen góor dañuy wëññi ko duggaat ci biir kër gi am ñoo xam ne du ñu tasee mag bu mag nee tëll ñu duggaat ci biir kër gi bu dee gone ñu gaawantu ne ko jàpp loxo ak ñi nga xam ne lu leen dal fexe nañoo lijjante ba am kuñ ko gàll. diw sàngam moo ma xooloon diw sàngam moo ko joxoon nàkk ga diw sàngam moo ko joxoon guro ga képp ku gëm yooyu doo bokk ci juróom-ñaar fukki junni yooyu di du gàjjana te kenn du leen isaab de <coughs> sallallahu alayhi wa sallam na du ñu gàjju gàjju xam ngeen li koy waral saw yaram am foo xam ne deret dafa dajaloo wala am métit ñu ñaas ko ngeen ñaaskat yi nekk ndakaaru am na dañ koy gàjji këpp fa lu mel ne béjjën xëcc deret yi ba mu génn am la la ñoo xam ne dañ koy dagg lu mel ne paaka tàngal ko ba mu tàng ñaas ko ci kaw sallallahu alayhi wasallam nee na daal ñi nga xam ne dañoo lu ci yàlla rek <coughs> lu leen yàlla teg ñu bàyyi seen borom juróom-ñaar fukki junni ñuy dugg àjjana te kenn du leen isaab ca ñooñee lay doon <coughs> loolu moo wax moo waral am na te mu conférence buñ fi waa université yi doon def loo waa fac médecine ñu doon indi xeet yooye xam nga ne boroom xam-xam yi dañoo doon ñetti kuréel ñi dañ ne science médecine jàng ko daa war wala dañ koo sopp ña wax ne warul sopp ko ñoo ñi nga xam ne bët bii la ñuy xoole bu leen fàtte ne lislaam daganal na faju faju waaye imposé wu la ne la na nga faju lu war a Seydina Abubakar Siddiq bi mu tollee ci tawat ji di waaj a génn jamono dafa am ku ko ñëw ku ko dikkal ne ko ndax ma woo la docteur mu ne ko docteur bi seet na ma seet na ma mu ne ko lum la wax mu ne ko nee na ma inni faalu li ma uridu inni faalu li ma uridu maay def li ma soog ki daal di xam ne kon ki waxul docteurum nit waaye foofu ku fa sa ngëm àggul bu ko jéem a yóotu mukk mukk yamal rek fi suñ borom yemale sa ngëm bi sallallahu alayhi wa sallam waxee lii sahaabi bi ñuy tudde Seydina Ukaasa am minhum ana ya rasulallahi yow yonentu yàlla bi ndax man ci ñooñu laa bokk sallallahu alayhi wa ne ko waaw beneen waaye ne ñokket ne yow yonent ndax ca laa bokk sallallahu alayhi ne ko okaasu njëkk na la ca okaasatu njëkk na la ci okaasatu hmm. njëkk na la ca nag mën naa am kon jataay ba ñu toog kenn la ca suñ borom tànn ku ca war a bokk te mooy okaasa moom suñ borom moom moo xam zahir ak baatin daal nan la koy dëppalee <coughs> waaye bi ko suñ borom yónnee sallallahu alayhi xam ngeen ne borom xam-xam yi nee nañ toog na ñetti at yoo xam ne li ñu tuddee fatratul wax yi toog na ñetti at yoo xam ne gisatul jibril amul benn xabaar bu bàyyi ko asamaan sallallahu alayhi wasallam àgg na fi tiit ba jàpp ne seytaane ko dikkal wala jinne moo ko dikkal am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne àgg na ci léeg-léeg yéeg ci am montagne xelam sax di nekk ci dafa war a xaru dafa war a xabar ñi ko daanu su ko defee Seydina Jibril feeñ ca kanamam dal na ko anta rasulullah yonent bi yàlla nga de xelam dal di delluwaat dalati ba ne alxuraan wàccee wa duhaa wa layli isaa sajaa maa waddaaka rabbuka maa xalaa wala al axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yuutika rabbuka fa tardaa ba na saar wa jeexee wax yu gi daal di tàmbali sotti kuwaat yaa ayyuhal muzammilu ak yaa ayyuhal mudassiru saar yooyu daal di tàmbali sotti ko salaali salama sax na makk fukki at ak ñett di woo nit ñi ngir ñu bàyyi xëram ak jaamu yàlla mi nga xam ne daal mooy kenn <clears throat> sant ñu leen xeex sant ñu leen fayantu ñu du leen lor du leen dóor du lakk ci naaj wu tàng wi léegi ñu taal safara séendal leen ba graisse gi jóge ci seen yaram wi mooy mooy rot ci sawara yi ba fay ko te sañu ñoo fayu sañu ñoo xeer léeg-léeg danañ ñëw ci kanamam <coughs> yoo xam ne dañ koy dóor ba toj aw yaramam yoo xam ne dañ koy xaañ mu ne leen isbiro fa inni lam omar bi xitaalihim muñ leen rek man kat kenn digalu ma ma ñoom ba benn délégation ci saaba yi dikkal ko abdourahman ibnu awfin miqdaat ibnu laswat xudaamatum nu masuun xudaamatum nu masuun mooy mbokkum ousmane ibnu masuun mi ñu njëkk rob ci baqi ul xarxat mooy armeeli madinatu munawara miqdaat ibnu laswat ak saadu ibnu abi waqaas ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun kat bi nga daataan ñëw danoo amoon teraanga ñu fonk nu weg kenn nu yàpp bi ñëwee léegi ñu ñeme nu di ñu gaañ di ñu dóor di ñu yàqal a ah loolu lu ciy xalaat sallallahu alayhi wa sallam ne daal ne téye leen seen loxo téye leen seen loxo diggalu ma ñu xeex diggalu gu nu xeex ba bi mu gàddaayee jóge Màkka ñëw Madina ci atum ñaareel ma alxuraan wàcc usina lisina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna laa ala nasrihim la qadirun ah booba lañ daa seeni gànnaay nag fa yéenee jàmmarloo ak yéefari màkk Quraysh dikkal nañ ko lu am solo nañ ko bàyyi xel ci tomb bii ñuy wax ak bi ci tomb ñëw nañ ci sallallahu alayhi ne ko <clears throat> dañoo bëgg nga def tanaasul ci lenn ci lislaam walid ibnul muxiira aas ibnu waa'il laswad ibnu abdul muttalib umayatu ibnu xalaf ñoo jiite délégation bi <coughs> wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko <coughs> danoo bëgg ñu partager d'accord nañ jaamu sa yàlla ji diina ji nga indi ñu ànd yow di di ko jaamu atum lëmm waaye bu at mi jeexee yow nga bàyyi sa diine ñëw ànd ak ñun di jaamu suñu xërëm yi am at sallallahu alayhi wa sallam ne na maasallaay an ushrika bihi xayrahu yàlla na ma suñu borom musal ci bokkaale yàlla ak leneen lu dul yàlla loolu ci ñenn ñiy wax ci asbaabu nuzul nee nañ mooy sababu qul yaa la kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduuna wàcc meneen mbooloo dikkal ko ngir gaaral ko beneen tanazul ne ko léegi dañoo bëgg leen daal lenn ci sa alxuraan ji li muy digle nga am loo ci bàyyi su ko defee ñu bokk ci sa bokk tàbb ci sa diina ji <clears throat> bi ci njëkk mooy aaya yi nga xam ne day ŋàññ suñu yàlla yi yëpp da koy dindi dootoo tudda suñu yàlla yi dootoo ko ŋàññ alxuraan ne wa isaa tutla naa ayatuna bayinatin qaala lazina laa yarjuna liqaana iti bi quraanin gayri haza aw baddilu qul maa yakunu li an ubaddiluhu min tilqaai nafsi in attabiu ila ma yuha ilayya inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yawmin azimin suratu yunus du ca remplacer dara ndax sañu ma ko ma ko yàlla wax loo rek noonu laa koy waxe waaye délégation bi mujj nag dañoo ñëw ni ko daal d'accord nañoo dugg ci sa diine ji waaye ñaar rek lañ bëgg moom nga nga dindi ko mu ne leen ban ak ban mu ne ko julli ak génnee asaka daal suñ doom yeeg suñ soxna yeeg njaboot yu toog daal ñu sëgg ko siggi ci suñ kanam di taqal suñu kanam yi ci suuf si boobu daal dañoo bëgg nga dindil ñu ko ñaareel suñu alal yi it nga xam ne ñoo ko sonn moomal ko suñ bopp it sa diina ji dañu forcé ñu di ci génnee ab part bu rëy di ko joxe julleeg asaka daal lañ bëgg nga nga dindil ñu ko ci soo ko nangoo dindi rek ñu bokk ci ñu bokk tàbbi ci sa diina ji <coughs> mbokk yi lii boo ko seetloo ba tey mi ngi dox ci kaw suuf fi ñu toll ba tey mi ngi dox ci kaw suuf tubaab yi danga ci dégg ñu bare bare dañuy wax ne ñun gis nañ ne lislaam diiney dëkk la <clears throat> waaye li tax mënuñoo dugg ci seen diine ji mooy suñu sàngara sim suñu tere ne dootu leen ko naan naan ak suñu alal ji mu fas yéene di ko dagg di ko jox di ko jox faqir yi te ñun ñoo moomal suñu bopp suñu alal mu di ko jël par force loolu moo tax duñu dugg ci lislaam waaye lañ ko jënd jaru ko de bis muñ tajeeg seen borom lañu amoon lépp ñu wàcc ko wàcc ko ci àdduna danañ xam ne lañ ko jënd jaru ko <clears throat> kon nag tanaasul boobu bu doonoon lu woyof sallallahu alayhi wasallam dana leen ko nangul waaye dafa doonul lu woyof de mu waral du ko nangu ba saa taxaw lislaam danaa bi nga waxee baati seede yi julli moo ci jiitu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu gis ngeen ci téere bu mu tuddee mañ moo nooy reni fi fawaay daaray ni nee na nit ku dul julli bul bokk ak moom ndabal ñam di ca lekk bu ngeen bokkee ndabal ñam di ca lekk dana am tooke ju génn ci diggante weem mi ak baaraamam bi day dugg ci biir ñam bi ku ko lekk sab xol lakk te sa ku sab xol lakk sab xol dana wow nee na ku sab xol wow suñ borom mbugal la suñ tubaa wax na ci téere boobu nee na <coughs> nit ku dul julli boo takkee doomam ju jigéen dagg nga kóllëri doxoon sa digganteeg suñu borom àgg na ci nee na ku takk doomi nit ku dul julli mel nga ne ko màbb benn ponk ca kaaba ga bu ngeen jàngee maj moo nóori fi waaye di daare ni gis ngeen suñ tubaa lam ca wax sax ëpp na loolu kon sallallahu alayhi wasallam moo waral <coughs> biñ ko ne danga ñuy dindil julli ak asaka mu ne leen loolu du ko nangu mukk kon bu ngeen yeboo bàyyi bëgg gu leen a dugg ci diina ji waa xoree si tàmbali di ko lor ñii nee nañ ab poète la ñii ne ab njabarkat la ñii ne dafa dof àgg na ci di julli ñu jël suuf di ko sotti ci kaw boppam àgg nañ ci jël deret di ko sotti ci buntu néegam nga xam ne bu génnee rek tarxis ci deret jooju julli na ci peggu kaaba gi uqbatu bnu mu muayt ñëw joggi tànkam bu dëgër ci doq yonent bi sallallahu alayhi naj ko ba bëti bëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ki yàlla yónni jaar na ci lii julli na ci peggu kaaba gi ñu fekk ko ba laxas mbubbam ci baatam xerendi ko ba mënatu la noy <clears throat> ba kawaru sikkimam bi lépp dafa ruus foofee te tefa kaaba gi abubakar siddiq moo ñëw ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi yàllaaw ba wax leen ne leen da ngeen a bëgg a rey waaji te waxul lu dul yàlla yàlla mooy sama borom yàlla mooy sama borom rek la wax ngeen bëgg koo rey uqbatum na abi muayt jàpp na ci mbaggum yonent bi sallallahu xëcc ko laxas mbubbam ci doqam xerendi ko ni ma la ko waxee ci ginnaaw ba mënatu la noyyi riwaaye boo xam ne Buxaari yi moo ko solo sallallahu alayhi wasallam julli na ci mbestamu mbestanum kaaba gi aboo jëhlin ibnu hisham daal ne waaye xanaa du ngeen xool ngistalkat bi kan mooy dem ci cibrit yi jël genn mbaq ñëw bu sëggee rek mu teg ko ci kawam gaa ji ne tekk mu ne man maa koy def daal di dem ci cibrit yi jël genn mbaq bàyyi sallallahu alayhi wasallam di julli rek mu ñëw teg ko ci kawam mbakk mi nga xam ne bu siggi woon rek lépp sotti ko ci kawam mu sëgg rek continuer ba doomam ji jigéen soxna Fatima mooy yëkkati cëbbarit soosa yëkk leen lu mel ne xay Seydina Bilaal moo gën a fés lor yiñ ko lor moom ñëpp xam nañ ko waaye Xabaab Arat bokk na ñiñ daan lakk ak leen dóor dóor yu metti Ammaar ibnu Yaasir baayam di Yaasir dañ koo mbugal ba mu faatu ndeyam di Sumayatu dañ koo jam xeej ca koll ba mu faatu amaar ñu jàpp ko di ko mbugal di ko dóor di ko mbugal di ko dóor baa gi ci ne ko tey jii feeg saaga woo yàlla yi Muhammad ji tagg suñu yàlla yi dañ lay dóor ba nga dee duñ la bàyyi dañ ko naree rey mu wax tuuti ca lañ ko wax loo <coughs> ah mu jóge fa simbooy rongañam di jooy di yëkkat yëkkat di jooy naka la ñu yonent yàlla bi alayhi salaatu wa salaam yow mi yàlla yónni musiba dal na ma musiba dal na ma sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu xew mu ne dañ maa doon ba lañ ma doon wax loo wax naa ca tuuti sallallahu alayhi wa ne ko yaa Ammaar in aadoo fa ut yow Ammaar bu ñu la defee teelu mel noonu rek waxal loolu ba am jàmm bi nga koy wax fu sab xol nekk mu ne ko mutma innun bil imaan yi na ko sama xol a ngi dégg ci ngëm yàlla xam ne na sama làmmiñ moo ko wax waaye sama xol jegewu ko alquran wàcc man kafara billahi min baadi imaanihi illaa man nukkire wa qalbuhu mutmainun bil imaani walakin man sara walakin man sharaha bil kufri sadran fa xadabun min allaahi wa lahum azabun azimun ba fii ñu toll nii wala bu yéefar fekkoon ci bruq teg la fetal lu ñu warmaal ci lislaam mu ne la ñàkk ko teggin wala saagaal nangam ak nangam boo ko waxul ma soqi bali mu dugg ci sa biir bopp bi sañ ngaa wax baat boo boobe mu la wax loo waaye li am solo bu mu dugg ci sa xol rek <coughs> na nga ko wax ci saw làmmiñ waaye bu mu dugg ci sa xol loolu moo waral bu fekkee ab jullit da ngaa gis euh, ñu ko ëpp doole yóbbu ko ci ruq bëgg koo rey ngir wax loo ko lu jaaduwul wala def loo ko ko ngir sowe bakkanam tax mu wax ko ba jàll bu fa bul ko attake <clears throat> bul ko attaqué bul wax ne gëmul du jullit aha kay loolu mu def lislaam nangu na ko <clears throat> kon Muhammad sallallahu alayhi wasallam noonu la sax di woote ci tënk rek dañuy tënk diggante yu bari yooyu yëpp dañ koo tëb di résumé ba ni mu génn jamono <clears throat> bisub altene di fukki fan ñaar ci weeru gàmmu ci fukkeelu at ma ak benn <clears throat> ah lu kéemaane nga noonu de du bisub tey ji mooy fukki fan ñaar sallallahu alayhi wa sallam ci bis bi la ganee àdduna ci la génn jamono fukki fan ak ñaar yi ci weeru gàmmu net ci la ganee àdduna ci la génnaat àdduna ci atum 632 ci néegu soxnaam soxna Aïcha bi muy génn jamono mi ngi am juróom-benn fukki at ak ñett génn jamonom googu daal di indi satma bu rëy ci jullit yi ki njëkk a taxaw ginnaawam wutu ko mooy Abu Bakri ni Siddiq jullit yi jaayanteeg moom <coughs> waaye nag. Aboubacar bi nga xam ne ni jàll nañuy jaayanteeg moom mbir yu doy waar tàmbalee xew xam ngeen ne sax sallallahu alayhi bi mu daataan génn jamono ay jëmm a ngi tàmbalee woote prophétie ku mel ne tuñu ki ñu tuddee la suwat la suwatul ansi yi déclaré na ca yaman ne ab yonant la bu yàlla yónni musaylimatul kazaab <coughs> déclaré ca yamaama ne ab yonent la bu yàlla yónni ki ñuy wax tulayhatul asad yi moom it daal woote prophétie ak ndaw suñuy wax sajaa bintul xaaris ak ku ñuy wax su taaj laqit ibnu malik al asad ci réewu umaan fekk sallallahu alayhi bi mu daataan génn jamono takk na xare jiital usaamatu bnu zeydin ne ko demal saam nga jéem songi giir yooyu nga xam nee na ñi nga takkatoo ngir waaj a dal si ci madinatu munawwara ñu ko defee seydnaa umar ibnul xataab daal di wax seydnaa si siddiq ne ko <clears throat> am naa xalaat am naa xalaat mu ne ko looy xal sa xalaat mu ne ko yonent sallallahu génn na jamono giir yu bare bare murtad nañ te ñi ngi takk xare soldaar yi jullit yii boo leen yebalee ñu dem saam bu ñu ne benn armée bu am doole nekkatu fi danañ song Madinatul Munawwara su boobaat dañuy faagaagal benn yoon <clears throat> Aboubacar ne ko yow Omar xare bu yonent bi sallallahu alayhi wa ma fasaloon boppam mu génn jamono tax ma fecc ko ne ko buñ ma doon daggate pare morsa buñ ma doon daggate pare morsa ma gis ay xaj di matt tànki soxna yonentu sallallahu alayhi wasallam di ko diri sax du tax ma fecc xare bi yonentu sallallahu alayhi wasallam façon nga xool Aboubacar dogoom gi ak ngëmum gi loolu moo waral suñu borom tànnal ko sallallahu alayhi mu nekk ab xalifaam xam ngeen ne boo dee topp ngëneelam <coughs> màggaay gi mu màgg wet goo xool gis ko bokk na ci ngëneeli Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee ñu am na jëmm ci bannoo Israël joo xam ne ku gudd fan la woon mooy na yàlla ñaar téeméeri at féeteerlu rek suñu borom waxtu faatam joto suñu borom wax yant yàlla Moussa ni ko diw sàngam faatu na demal nga sangal ma ko te julleel ma ko te robal ma ko <clears throat> banoo Israël gépp dal di yéemu <clears throat> ñëw ci Moussa ne ko yow Moussa ndax xam nga ki ngay waaj a jullee nit ki gën a féttéeru dàq mooy yàlla ci bannoo Israël moom ngay waaj a jullee Moussa ne leen xam naa ko de waaye suñ borom moom ma ci jox ndigal ah nit ñi gën a téye yéemu ku mel nii nu yàlla di joxe ndigal ab yonantam mu toppatoo ko mu leen man de xaw ma ci dara naka la ko Moussa toppatoo ba rob ko ba noppi <laughs> ne leen sama borom nee na wax ngeen dëgg de waa ji ku mënoon a mooy yàlla la waaye benn bis dafa ubbi benn téere di ko jàng. gis ca biir téere bi ñu bind ci turu Muhammad mu fonk tur woowu ba jël ko teg ko ci diggante ñaari bëtam fii ci ab jëm barkeelu gam doon barkeelu ak màggal gam doon màggal turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ci la ko baale ba du ko ba du ko topp toote du ko topp tool dara yàlla jégal na ko ci la koy tàbbalee àjjana kon nag ki suñ borom dimbali ba mu dugg ci lislaam di julli di woor di jëfandikoo kem kàttanam di sharia santaane booleeg di bëgg ak di màggal gane jamono Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku suñ borom mën na koo defal ngëneel lu toll ne asamaan ak suuf wala sax lu ëpp asamaan ak suuf bokk na ci ay mujj saatam ay jeexit yu yéeme yoo xam ne ay xar baax la feeñ ci dundam waa manitul mun na war a am na genn guddi ñu dégg lu yëngutu biñ déggee lu ne rëg-rëg ci dëkk bi sallallahu alayhi jàpp ne ay wëyu ñoo song dëkk bi di siiw seen gàtt yi ak seen alal ji sallallahu alayhi wa yam ci fasu aboo talha <coughs> aboo talha <coughs> fas wu yeex a yeex la yoroon sallallahu alayhi bi mu waree fas yu dawal war na ma di tur mu ndaw war a gépp ba dellusiwaat taseeg mbooloo bi ñuy soog a jóg mu ne ko yow aboo talsa sa fas wi kat bi ma ko waree fekk naa ko mu gaaw ba mel ni géej guy daw gis nga fas woowu moo gënoon a yéex ci mboolem fas yi Madina mun na war a keroog bu sallallahu alayhi wasallam waree ba ne ko sa fas wi fasu gaaw la keroog la fas yu tàmbalee gaaw ba bu ñuy rawante mbooloo moom àndal fasam yi muy jiitu ci fas yooyu Seydina <coughs> Xaalid ibnul Walid dafa amoon daggite kawaru yonent bi sallallahu alayhi def ko ci biir ab mbaxaneem bu dee sol mbaxane bi rek solaale ko ci biir xare bu mu dem kawar googu nekk ci biir mbaxaneem mi dana ko may day faagaagal yéefar yi nday joor ak càmmoñ ci kenn mënu koo rey ngir barkeb kawaru yonent bi sallallahu alayhi nekk ci biir mbaxaneem moomu ba keroog xasuutu yamaama gis ngeen ni mbaxane mi dafa rot ci biir xare bi mu xoolee gisul mbaxane mi mu wàññeeku xuus ci biir yéefar yi di dóori jaasi di dóori jaasi ndeyjoor ak càmmooñ ba jël mbaxane ma soo ko dukk dukk ci seen biir ba génnaat ñu ne ko yow Xaalid ndax am mbaxane moo tax ngay xaru di jaay sa bakkan mu ne leen déedéet du mbaxane mi moo ma taxoon di xuus ci biir noon yi waaye kawaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa nanguut a bàyyi mu tàbbi ci loxo yéefar yi bokk na ci kiimaanam yooyu am na jëmm joo xam ne tawati góor moo ko dal ñaari way dend ndoom yi ci kanamam gi ñoo new yi ba xajatul ci ci daanaka ci diggante tànkam yi biñ ko indee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi def ko ne demal ci teen sàngam gallax woon naa yàbbi ca soo demee boo jëlee ndox ma boo ko ci raxasee da nga tàggoo ak moom waaye jël dem jëm dem ba mu demee jël ndox ma naka la sot sotti ci ñaari cëram yooyu mu ne gër yi fa la jaare rees ba nam faatoo tawat jooju dalaatu ko Abu Hurayra borom yu bari yii <coughs> Abu Hurayra ndax xam nga ne mënutoon a liir <coughs> Abu liir mënut bind <coughs> yonent bi sallallahu alayhi day wax rek muy mokkal Abu Hurayra xel mi neexutoon mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ko sama xel mi daa naqari damaa bëgg nga ñaanal ma may mokkal sallallahu alayhi ne ko tàllalal sa mbubb mu tàllal mbub mi yonent bi mel na luy tibb di mel na luy tànq rek yére di tuur bi mu tànqee tuur ba yàgg mu ne ko jëlal mbub mi nom ko mu nom mu ne ko tafal ci saw yaram mu taf ci yaramam Abu Hurayra ne bisu keroog laa tàmbali lu ma déggati mokkal ko te lu ma mokkal dootuma ko fàtte mu ne kenn ëpp ma mokkal kenn dong la Abu Hurayra d'accord ne moo ko ëpp mokkal mooy Abdullah ibn Omar te Abdullah ibn Omar nee na day liir di bind te man liir mënumaa bind xam nga ne kon suñ borom moo mën a joxe ngëneel bokk na ci ay kiimaanam gis nga Seydina Okaasa moom mën a tuddal ci ginnaaw Okaasatu ibn Mihsan jamono yi nga xam ne ni ñi nga xare Badar jaaseem dafa damm <coughs> jaaseem damm na sallallahu alayhi wa sallam for génn ëkk rek tàllal ko naka la ko tàllal occasion tey rek ëkk gi soppeeku jaasi muy xeex di dóor di xeex di dóor ba xare bi jeex ëkk ga continuer nekk jaasi jaasi jooju al awnu la tudd ba ba ñuy xeex ak musaylimatul kazaab ca yamaama fa la jaasi ja damme <coughs> xanaa lu kii lu yéeme mi ngi noonu <coughs> nga xool Abdullah ibnu Jahshin ci xasuutu Uhud moom it jaaseem dafa dam sallallahu alayhi wa jël benn caru tàndarma tàllal ko ko mu téye mu soppeeku jaasi xam nga lu ciy kiimaan gi même yont yàlla Muusa yetam ma moom ko sànnee mu soppeeku jaan wan mbooleem njabarkati Firawna ya seen jaan ya seen buum ya ba jataay ba jàllee yetu Muusa war a soppi ko waat aw yet ñaar ñi nag kenn ku ci nekk ke ak la ko yonent bi sallallahu jox kii caru tàndarma la ko jox ba xare ba jàllee ëkk ka dafa continuer nekk jaasi caru tàndarma bi continuer nekk jaasi ba jaasi ji dafa mujj damm ca ba ñuy xeex ak Musaylimatul Kazaab ca Yamaama bokk na ci kiimaanam yooyu nga xam ne gàddaay na ñëw na Madinatul Munawwara ci yoon wi dafa jaar ci kër soxna su tudd Ummu Mahbat daal ndax am ngeen fi xéewal gu ngeen ñu terale soxna si ne ko amuñ fi lu dul benn gàtt bu jigéen bu yooy bële xam ne ween yaa ngi ne làpp amul soow amul dara sallallahu alayhi wa sallam ne ko indil ma ko ne ko la ko indi sallallahu alayhi weenu gàtt bi mu fees dell ak soow mu naan ci ba màndi jox ñi mu àndal jox Abu Bakar boog soxna si ak njabootam naan ci soow mi ba màndi mu boroom këram ñëwee ba mu ko ko nettalee la ko ne kat man faw dem ba Madina ba dugg ci lislaam yi jëmm jii dama la doon xaar ba nga jox ma ci ndigal soxna su umu maabat dafa ñëw ba Madina mun na war a mu dugg ci lislaam <clears throat> bokk na ci kiimtaani borom guddi gi jëmm ji ñuy wax umay rubnu saadin <coughs> umay rubnu saadin sallallahu alayhi daf koo ñaanaloon barke ci dundam ak wéram umay rubnu saadin dund na juróom-ñetti fukki at ba ba muy faatu juróom-ñetti fukki at ba muy faatu amul kawaru bejaaw kawar gu ñuul kukk la faatu waale lu waral loolu yonent bi sallallahu alayhi jël na loxoom raay ko ca boppam ba ñaanal ko barke dund na juróom ñett fukki at màggatul ci ay cër kawaram gu ñuul ga soppikuwut bokk na ci ay kiimaanam jëmm ju ñu tëdd utbatum nul farqat jëmm la woon joo xam ne boo ko jubee rek xetu parfum bi dafa lay xeeñ gëtt gi day golli soxnaam si ñuy wax asim nee na ñun ñetti soxna lañu woon waaye kenn ku nekk ci ñun boo waree ñëw ci moom dangay xeeñ say parfum taal say cuuraay lu nekk nga dugg ci waaye boo jegee boo jegee ot batu rek xet gu neex gi muy xeeñ daf lay fàttalu sa cuuraay la ak sa parfum yi rek te moom du xeeñ dara ñu ne ko loolu fan nga ko jële <coughs> mu ne damaa amoon picc ràmm am na picc yu sew yu xonq yi faral di dal nit léegi tey tàng jër di metti lool moo daloon Utbatu bi mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ñaan tofli ci ñaari loxoom teg biir loxo ci biir bi bii ci ginnaaw gi daal di diri ñaari loxo yi ba ñu daje mu daal di ñaan tofli picc yi dafa daal di wér Utbatu moonu ba ni mu faatoo foo ko fekk xet gi day day day gil rek day mel ni kuy sotti kuñ sotti ci kawam butéeli misk butéeli parfum yi gën a ko sotti sotti ci kawam bokk na ci kiimaanam yi alayhi salaatu wassalaam <coughs> teg na loxoom <coughs> ci bopp Seydina Hansala ñaanal ko barke Hansala moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon loxoom ci boppam ñaanal ko barke feebar bu nit mën a yor boo ñëwee ci kanamu Hansala Hansala dalay laaj fii metti nga wax ko bu ci tegee bopp bi bomb ko rek foofa daal dina gërëm seddu guy bu dee fu new yi day naan gëriif daal di rees xanaa docteur yi àggaguñ foofu de alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ay kiimaanam sayida asma bintu bi bakrin dafa yoroon menn mbubb moo xam dafa def ay trait yu wert nit ku feebar boo ñëwee da koy xooj cim ndox boo ko naanee dal di wér ci saasi ñu ne ko foo jëlee mbubb mi mu ne mbubbum barkeelu la mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi am na ndab lu daan naane ginnaawam ñii nee nañ dañoo dagg buntu guttu ba borom téere abwaabul faraj ba loolu la wax waaye kii moom nee na lu mel ne këll bu yonante sallallahu alayhi wa sallam daan naane dañ koo garde ginnaawam nit ku feebar buñ la ci defalee ndox boo ko sangoo wér boo ko naanee wér bokk na ci kiimaanam Seydina Anas ibnu Malikin nee na <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na ndesetu njàppam sotti ko ci teen ba nekk ca ñuy wax xubaa naka la sotti ndox ma ca teen ba teen bi fu mu toll day fuur ba ci bunt bi mboolem di wër gox boobu teen yi mën naa ŋacc wala ñu ŋiis waaye teen boobu du ŋiis du ŋacc fu mu toll day fees dell rek ngir barke bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci barkeem ak kiimaanam <coughs> Seydina Salmaanul Farisi dafa amee woon bor bu bari bu mat ñeent fukki oguy ya sallallahu alayhi wa jël luy tolloo kom nen ne ko demal nga fay ci sa bor yi Salmaan ne ah man morso bu tuuti bii ana lu may jëriñ sama bor yu bari yi sallallahu alayhi wa jël morso wurus boobu dugal ko ci gémmiñam wëndeel kooku làmmiñam daal di ko ne demal fay ci say bor mboolem ñi mu ameel ay bor dañuy ñëw mu di leen ci daggal di leen ci daggal ba fay na ñeen fukki ugg yi yooyu ba mu jeex ba jeex tàkk te nen nenu wurus bi ko sallallahu alayhi wasallam a joxoon dara jógewu ci bokk na ci ay kiimaanam xataa dootum nu noomaan nee na dafa jullee ndoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam gee guddi koo xam ne day taw ba noppi lëndëm sallallahu alayhi wasallam a jox ma benn carub tàndarma ne ma boo génnee tàllal ko boo ko tàllalee dana la leeralal fi ngay jaar naka la génn tàllal caru tàndar bi mu mel ne làmp torsu boo taal di ko leeralal fi muy jaar sallallahu alayhi wasallam ne ko boo àggee sa kër da fekk lu ñuul kukk lu taxaw ko ko dóor seytaane la boo ko ko dóoree mu daw naka laa nga fekk lu ñuul kukk lu taxaw ci kanamam naka la ko dóor caru tàndar ba boobu loola ne mes gisatu ko muhammad alayhi salaatu wassalaam kon boo ko seetloo lim fi indi mu doon dëgg guy sax ba saa taxaw waaye nag bu leen fàtte dëgg ak caaxaan dañuy jàmbaarloo feek asamaane gi feek suufa ngi fi yow kon lan moo la war dëgg gi nang ci bay sa kem kàttan rek ba waxtu wi la yàlla sàkkal nga war koo dund bu jeexee rek nga xam ne jeex na bul découragé mukk mukk ne caaxaan yi ak lu dëng li mënuma ko fee jëlee kon bu ma ci jéem dara déedéet xam naa dégg ngeen sax la fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiallahu taala anhu waxoon mu ne woon ku attanul say wi yët mën caa yore ak matt waaye boo ci jëlee ak matt nag booy tëdd tëddal ak matt gi booy jóg jóg matt lii foo jëm dee léngi léngi matt gi rek gis nga jamono àgg na foo xam ne mel na noo xam ne bul wax ne mënuma ci dara kon lu ma ci jéem dara kon suñ suñ boroom bul layoog yow ëllëg dana la yey bu la waxee benn baat doo am loo ci teg boroom kër xam nga bu lëjalee këram fasul yéene mu lijjanti ndax kenn mën na ko lijjanti àdduna yàllaa ko sàkk ba noppi lëjal ko buggul mu lijjanti ko waaye amaloo fa sa yaral la wa amalakum wa rasuluhu alxuraan def na ni ngeen jëf yàllaa ko yonent bi danañ gis seen jëf xoolal diggante namruut ak yonent yàlla ibrahima dëgg ak caaxaan daf doon léewtu est-ce que xam nga ne <coughs> ñeent ñoo mës a yilif àdduna ñeenti buur képp ñoom la seen nguur mës a yilif àdduna ca penku ba ca sowu ka njëkk mooy namruut ibnu kanaan xam ngeen ne fan yii ñu tollu bu yàggul ay weer ci ginnaaw guerre yu bari ya am Irak xam ngeen ne dem nañ dëkk bu ñu Kirkuk ba gis nañ bàmmeelu Namruud ba toj ko waaye lañ fa fekk ci xeetu ay ay pemeek ay lu ñu rekk or ak wurus kenn xamul nu mu waaye desitu Yaxya ba tey de mu nga fa des Namruud ibnu Kanaan mooy buur bi njëkk a yilif ak soow bi Ibrahima naan ko yàlla yàlla mu ne daa bëgg a dem ci kaw asamaan seetu yàlla Ibrahima ji daal di wut ñeenti tan ñeenti tan la wut di leen jox deret ak yàpp ñuy lekk di leen jox deret ak yàpp ñuy lekk ba mel ne tan mu ci nekk bu yëngalee laaf yi fii rek poussière bi jóg mu lu mel ne genn genn mbaq daal di koy defar ba mën cee dugg yeew ko ci ñeenti tan yi daal di dàq tan yi tan yi naaw ak moom wuti biir asamaan si tan yi naaw di naaw di naaw ba dugg ci niir yi mu jékki-jékki séenatul suuf mu xam ne mbir a ngi waaj a xew de mu xool xool gisul dara te gisatul suuf waaye mu doon ku yeew ndax bi muy yéeg ci kaw dafa jëlaa yoraale ay morso yàpp comme yàpp lay jox tan yi lekk nag naka la sànni morso yàpp yi yàpp yi root wuti suuf rek tan yi ni ñoom it daal di topp morso yàpp yi wut si suuf loolu moo ko delluwaat ci suuf si waaye nekkoon day sànku ci ñi ñi njëkk a woote ak yàlla wu ci kaw suuf moo ci jiitu wala kenn jiitu ko ci. diggante mag Ibrahima seen bëre ba ana fu ñu mujj dëgg not caaxaan diggante Moussa ak Firawna na Moussa li mu daj <coughs> Firawna mu ne àgg na ci wane ne maa alimtu lakum min ilaahi xayri ma leen jenn yàlla jurul man ñu ne déeta waaye mu ne ana rabbukumul a'laa may seen yàlla ji gën a kawe diggante muusa ak Firawna seen bëre ba ana fu leen fu leen yàlla àttee ca bahrul xalsum mer rouge ah ànd ak bannu Israël jégg na moom fanaaniwul këram keroog de film boobu ñuy wax le dii commandement nag le dix commandement de Dieu film boobu ni mu nettalee mbirum Moussa ak Firawna du dëgg demewul noonu xam nga boo ko film bi boo ko seetloo Firawna daa ñibbisiwaat këram Firawna ñibbisiwaatul këram mook soldaare mi kenn ñibbisiwul ci géej gi lañ des diggante yont yàlla Insa ak romain yi. dëgg ak caaxaan ba ñuy bëre foofu ana ko mujj féete kaw waxuma la ay jullit de waaye biir lislaam dong ñaata instant ñoo fi nekk rome yi moom seen buur ya da lijjanti ba sonn sax soo nga xam seen turu buur ya <coughs> diggante Muhammad alayhi salaatu ak yéefari màkk dëgg ak caaxaan daf doon bëre waaye ana bu ci mujj gañe <coughs> dëgg ma mujj gañe sa tànt bii rek boo ko doon seet ñaata Mouhamed da nga ko fi génnee ah est-ce que mën ngaa fexe ba génne fi am aboo jëxlit yàlla nañ ci yàlla musal doo ko dégg doo ko gis dëgg ak caaxaan bu ñuy bëree noonu la mel waaw diggante Cheikh Amadou Bamba ak Leclerc diggante sëñ Touba ak Paul sëñ bi dëgg caaxaan bu ñuy bëree ana bu mujj féete kaw biir tànt bi soo ko doon seet mën nga wégg ay ay xaadim yu dul jeex ak Ahmadou Bamba yu dul jeex de waaye wëral dëkk bi ndax da nga fi gis am Paul Marty walla nga gis ab Leclerc doo ko gis ba saa taxaw noonu la dëkk ak caaxaan di léew toon mbokk yi alxuraan suñ borom daf ñëw digal <coughs> jox ñu ab lettre boo xam ne bii mooy constitution bi ñu war a tënku de alxuraan du téere boo xam ne dañ koo war di jàng di barke wala rek mu jeex du téere boo xam ne dañ koo war di raay raay suñ loxo raay suñu yaram mu jeex dëgg la de am na barke manees na cee faj aajo manees na ci faji feebar waaye dañu cee digal tere ñu ci yaa ayyuha lazina amanu laa tattaxisu lazina taxasu diinakum huzuwan wa la'iban min allazina utul kitaab min qablikum wal kufaara awliyaa wa taqullaaha in kuntum mu'miniina wa izaa naadaytum ila salaati taxasuha huzuwan wa la'iban bi annahum qawmun laa yaqiluuna suñ borom nee na yéen gaa gëm yàlla bu leen jël. ñi jàppe seen diine lislaam ji ñi ko jàppe caaxaan ak umpo diggante juif yi ak chrétien yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kufaar yi tamaaman bu leen leen def ay kilifa suñu borom moo ñu ko tere ñun jullit nañ seet suñu bopp ndax wéyal nañ digalal yàlla lii ndax du jullit yi léegi ñu ci gën a bari juif yi ak chrétien yi lañuy roy de lu ko waral dem nañ seytaane gémb leen jox leen doole yi àdduna ñu colonise woon suñu réew yi bàyyi ñu ay jàngoro te buñ bi ñu demee ñun dañoo war a décoloniser incha allah yaa ayyuha llazina aamanu laa tattaxizul yahuuda wa nasaara awliyaa suñ borom nee na yéen gaa ñi gëm yàlla bu leen jël yahuud yi ak nasaraan yi def leen ay kilifa ñoomu neen ñoo war a doon ay kilifa ak surga ci seen biir waaye yéen jullit waru leen a jël chrétiens yi wala juif yi def leen ay kilifa suñ borom nee na képp ku far ak ñoom ci ñoom nga bokk te suñ borom du jubal mukk mukk gaa ñi nga xam ne dañuy tooñ lu ko waral lislaam ci boppam lañ mënta toloore ndax lislaam daf leen a masoon a not mbooloo mu dul jeex dugg ci <laughs> te yàlla teg loxo ci diine jooju mënees naa xeex jullit yi waaye mënees su xeex lislaam bu ngeen xoolee xeex bi ñuy xeex lislaam nag duñ doggantal mukk mukk lu ñu tàyyi mukk lu ko waral islamophobie boo xam ne day dund ci seeni xol kenn mënu koo dindi ci ñoom jamono bii nu toll nag mbokk yi bokk na ci li ñuy gën a xeexal mooy baatu terroriste terrorisme terrorisme ñiy terroriser nit ñi ci kaw soo bari na ñoom ñi nga xam ne ñoo jël baatu terrorisme ba bu wéer ko ci jullit yi boo leen xoolee ñoom ñooy terroriste yu mag yi ñoom ñoo def ci kaw suuf doomu aadama loo xam ne nit mësu koo def te nit du ko def ci kaw suuf ba saa di taxaw gis ngeen bu yàggul bii ci état bi ñuy wax Las Vegas Las Vegas ci États-Unis d'Amérique xanaa gis ngeen boîte de nuit bi boobu tubaab bi nga xam ne lu ma juróom fukki ay kalachnikov la dajale lu yee benn néeg dugal ko fa xaar ba ñu tàmbalee fecc ak di naan sàngara rek rek mu jël tiim leen di arrosé bu jeex rek mu dem jëli beneen ba bi mu faatoo bañ demee ci néeg ba mu nekkoon lañ fekk la mu fa dajale ci ay classe kalashnikov la tudd xamu kalashnikov la mu fa dajale kenn xamul nu mu toll waaye gis nga bi loolu jàlle américains yi nanguwu ñoo tuddee waa jooju terroriste nanguwuñ koo tuddee terroriste de ndax américain la waaye bu fekkoon ne xoolal benn paaka dong la ab jullit jël yëkkati ko foofee buñ ko jàppee dañ naan terroriste terroriste bi loolu jàllee xanaa gis ngeen ci fan yi rek yàggul ci Californie gis ngeen jëmm ji xaar ba bisub dimanche kay waa kër làbbe dugg ci biir église mu ñëw ba ba tiim leen rek di ro di arrosé rek ñuy daanu ba fan yi ngeen nee nañ dañuy toj église ba sax dootuñ ko bàyyi te mu nekk ab église jëmm jooju rek fi ñu toll nii déggoo américain yi tudde ko terroriste waaye ma ne kon ñun ndax ñun war nañoo am woyof bopp gu toll na ñun lu yëngu ci suñu réew rek ñu ne terrorisme terrorisme terrorisme rawat na jël suñu mbokki journaliste yi sexal leen tur boobu diw islamiste la diw jihadiste la diw terroriste la li ma gën a jaaxal nag mooy baatu jihadiste jihad moom bis bu ko xeetu lislaam bis bu ñu bàyyee jihad torox jihad moom ñaar moo fi nekk <coughs> gis nga sallallahu alayhi wax naa la fukki at ak ñett yi mu nekk màkk bu ñu ñëwee ne ko dañ dañ lor di ñu gaañ mu leen digal a guñ ñu xeex waaye ba mu gàddaayee màkk ñu maditu mu nawar ca ñaareelu at ma lañ leen wax ne jox nañ leen digal ngeen xeex baatub jàmm dafa mat a seet jàmm munta am lu dul gannaaw ba nga révolté bañ nangu la say droit waaye jàmm joom dañ laa not taxañ say àq sànni fële nga ne léegi damay am jàmm damay am jàmm ban jàmm loolu sallallahu alayhi wa sallam defoon màkka fukki atam yu ñett fukki atam ñett yu njëkk ya ku mel ne Cheikh Ahmadou bi mu ñëwee dafa fekk Cheikh Omar Fouti yu taal jihaad na ci jaasi ak ngànnaay Maba Jaxu jihaad ci ngànnaay ni ko noonu Mouhamadou Lamine Dramé Ahmadou Cheikhou Ba sëriñ tubaa xool xam ne kat kënu mëq doom mënut xeex ak kënu paaka ak jaasi munta a xeex ak mas 36 suñ tubaa nekkoon nañu wéer ngànnaay yi te seet beneen stratégie bu ñu jël ba mën a gañe ci guerre bi wëral mbindum suñ tubaa ba mbindum sëñ tubaa jeex doo fekk fenn fu la sëñ tubaa wax ne jihaat ak ngànnaay dañ koo tere de am stratégie dafa baax jamono ju nekk nga xam fooy jaar ba gañe ci geer bi waaye kenn waxu la ne la na lislaam jaar foo wacc ay ngànnaayam ñoom ñu wut ay gànnaay di ñu bombardé suñu jàkka yi di ñu rendi di ñu terroriser di ñu def lu leen neex ñun ñu sëgg rek naan jàmm-jàmm kooku du la nangul jàmm mukk wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hattaa yarudduukum an diinikum in istataa'u alxuraan nee na yéefar yi du ñu dañ di leen xeex ba bañ leen di génnee ci seen diine gi su fekkee ne mën nañ ko kon nag ñun nag suñum réew dañoo bari ñu woyof bopp xanaa gis ngeen ni bu yàggul fii ecole boobu ñu tëj rek ngeen dégg ndakaaru gaa yu génn di manifester contre Erdogan naan euh, Erdogan dictature la dictature waa ñoom semaine ba ca fan yi ca topp Israël daal di jël daal di tëj masjidul aqsa kenn du fa duggati du fa julli waaw man li ma jaaxal ñooñu lu tax manifester wuñ ña doon manifester ngir école bu ñu tëj fii rek ndakaaru ñu naan Erdogan dictateur la bi Israël tëjee masjidul Aqsa kenn gisu leen ci mbedd yi xanaa loolu loolaa gën a garaaw te Erdogan moomu ñu doon manifester di ko contre fii ñu toll nii boo doon tànn xalifatul muslimina tànnal Erdogan mooy benn président ci kaw su boo xam ne mi ngi défendre ak l'islam xitaawu Gaza ma nga nele Israël bombarde ko dara taxawutu boo demee tabaxaatal leen ay building jullit yi dëkk fa di wax laa ilaha illallah amatuñ courant bato courant leneen ñu mu ngi tëmb léegi ci géej gi te gis ngeen yeneen yi muy def gis ngeen suñ mbokki Rohingya yii nga xam ne Myanmar bouddhiste si ñu ngi leen di rendi xoolal lan la wax waa Bangladesh bàyyi leen leen ñu dugg si lu ñu soxla ci dund jox leen leen man maa jël engagement fay leen maa leen di dundal kooku yow nga nekkub jullit fii ñaari baat ak ñett nga naan diw dictateur di manifester ci mbedd yi te buñ laalee lislaam nga të nga tëdd nga tëdd ci nga tëdd sam néeg na cell loolu ndax ngëm la baat yi tubaab bi di wax buñ ñu koy wax loo ñu di ko wax nañu seet baax na ci ñun war nañ koo wax wala waruñu koo wax ki am na ne ab journaliste rek moom xaalis képp lay wut toppatoowul ngëm toppatoowul lislaam ñoom mën nañoo wax yooyu waaye ñun ñoo xam ne dañuy défendre lislaam ñoom bu ñu leen bu ñu leen fekk ci seen baat yooyu <coughs> am na yu bëree bëri xoolal dafa am benn yahut dafa invité Seydina Aliyu karamallahu wajhahu yu ñëw këram waa ji dal di dem dagg cëggub resin indil Aliyu yu dal di tàmbalee wat di lekk waa ji dem jël daam saanub sàngara ñu tàcc kanamu Aliyu Aliyu ne ko xaraam mu ne ko ah man daal yéen julli di jaaxal ngeen yow noo mën a lekk kii bañ a naan kii te kii mi ngi bàyyi ko ci kii sàngara si ci raisin bi lañ ko segge waaye tey mu xam ne tase naa mbër de Aliou ne ko wol ma sa soxna juif bi woo soxnaam mu ñëw taxaw mu ne ko am nga doom am nga doom ji jigéen mu ne ko waaw mu ne ko wol ma ko mu indi doom ji jigéen mu taxaw mu ne ko lu waral yàlla daganal la nga sëy kii araamal la nga sëy kii te kii mi ngi jóge ci kii waa ji ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah xam nga ne lay wu dal moo gis nga ay boroomi xam-xam borom xel yu ñaw mën a défendre diini ji fu ñu toll nañuy former xale yi di leen jàngal jadal di leen xal xamal ñuy xam elmul kalaam bu baax di xam bis bu ñu tasee ak ñu dëng ñooñu jël seen philosophie am na jullit yu bare bari li yàq seen diine léegi mooy taseeg ñuy philosophe philosophe la te amuñ lay yuñ mën a demee seen lay ya moo dal daanaka li gën a bari ci li ngeen di gis léegi ci jamono ngeen gis ko waaw bismillah bismillah sëñ bi nee na mi ngi laaj bi alxuraan ne yow muhammad aleyka salaatu wasalaam waxal nit ñi ne leen dara du dal ci suñ kaw lu dul li yàlla dogal waaye nag sëriñ bi seetlu leen seetlu aaye ji de illaa ma kataballaahu lanaa lanaa la wax de waxul alaynaa xul lan yusiibanaa illaa ma kataballaahu lanaa ndegam ñun ay julli lañ way way gëm lañ sallallahu nee na julli daal la yàlla defal xéewal bu ko natt dalee mu muñ muy muy aw yiw ñeel ko bu ko jàmm dikkalee mu sant ci yàlla muy aw yiw ñeel ko jullit ndegam mel na ni jullit war a mel dëgg dëgg dara du ko lor lu mel ne da koy lor tamit day xam na jël jullit war a taxawee suñu borom defal ko ca tuyaaba jullit bu ñàkk benn yoon nga ne nag buñ sukkandikoo ci aaya jooju ndax nit dañ koo forcer muy jëf wala mooy choisiral boppam di jëf li ko sekkee question bii maa ngi lay xamal ne jamono yu njëkk yi dañ daan tere ku ko laaj waaye danaa la ci tontu sallallahu alayhi wa sallam nee na iza zukira ashaabi fa amsiku su iza sukkira nujumu fa amsiku wa iza sukkira alxadaaw wal xadar fa am amsiku sa laaj bi dafa tur dugg ci alxadaaw wal xadar sallallahu alayhi wa sallam nee woon na bu leen laajee lu jëm ci science astronomie téye leen seen bopp noppi leen bu ñu tuddee sama saxaaba yi di wax naan diwa tooñ di tooñ xeex ba nangam ak nangam bu leen ci dugg fa wajabal imsaaku amma sajara na la seen a dawoo ko man fajara is kullu waahidin ala xaqil yadi xaqil yaqin alayhima ridwaanu murxil muttaqin sëñ Tuubaa wax na ko ci nuurul ci xasidaam googu muy woye njaal benn risaal wa isa sukkaral xadaa wal xadar fa am si ko buñ dee waxtaane dogalu yàlla ba ak ni mu koy exécuté su boobaa bu leen ci dugg xam nga lu ko waral foofu daa mën a yàq taw tawhiid nit ki imaamu Shaafi yi iblis daa ñëw ci moom bëgg a yàq ngëmam ne ko waaw mu sàkk ma mu sàkk ma te tàgguwuma moo ma sàkk te tàgguwuma ba noppit su ko neexee mu dugal ma sawara su ko neexee mu dugal ma àjjana ndax loolu màndu la saa fii ne ba yàgg mu ne ko yow bi mu sàkk bu fekkee ne daf laa sàkk ngir la neex su boobaa moo la tooñ waaye su fekkee daf laa sàkk ngir la ko neex nag huwa faalun li maa yuriidu laa yusalu amma yafalu wum yusaluuna iblis ne ko ah rëcc nga ma de ponkal yu bare bari fii laa yàq seen ngëm yow nag mënumaa fexe ba yàq sa ngëm est-ce que seetlu nga wax ji léegi ma jox la benn misaal al insaan musayyar aw muxayyar ma jox la benn misaal yow borom laaj bi déglu dangaa dangaa dangaa jënd antenne parabolique samp ko ci sa kaw kër ñu ñoddi fil gi dugal ci biir tele bi jox la commande bi mu def fukki seen première seen bi dalay won julli makk ga jàngum alxuraan deuxième seen bi moom boo ko laalee rek mu won la mu won loom ni jullit waru koo xool nga teg nga teg commande bi ci kaw taabal ji jàkkaarloog télé bi woo say soxna ak say doom ñuy ñëpp bi nga daataan génn nga ne leen su ma fi jógee dee leen bés numéro un mooy wane positif yi waaye numéro deux bu ko kenn laal ku ko laal ay négatif mooy mooy feeñ léegi nga dem génn ñëw fekk ñu laal numéro deux négatif yi di feeñ boo jëlee yar bi di dóor xale bi loo koy dóore sa ndigal lim mooy waaye dóoru loo ko ci kaw d'accord nga ne yaa exposé antenne parabolique yaa exposé télé bi télé bi mën naa baax mën naa bon waaye mooy gi mooy sa ndigal nag ba laal fii génnee lu bon foofu nga koy duma ndax xam nga li ma bëgg a wax est-ce que ki laaj-laaj bi dégg na ko wax yow it bala yàlla sàkke da ngaa mel ne antenne parabolique da ngaa mel ne tele ñu def ci yow commande innaa hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafuran innaa hadaynaahu najdayn ñu ne la yow sa jëmm ji bu laal numéro 2 de del laal numéro 1 nga lànk yow dem laal numéro 2 yàlla bu la dee duma fu mu lay duma sàkk naa la mën ngaa mooy mën ngaa dëng maa la nee bul ma mooy bul ma mooy mën ngaa dëng mën ngaa jub maa la wax ne nag bul dëng del jub yow nga lànk léegi wacc côté nga wacc wacc côté positif dem ci côté négative est que li ma wax dugg na ci boppam kon kon kon nañ jàll ci benn laaj Bismillah